salaamaaleykum chers téléspectateurs ak internautes yu RTT TV nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax a baax ñëwaat nañ ak yéen beneen numéro vision politique tey nag ñu ngi dalal madame Mbaye euh, Khoudia Mbow nekk adjointe à la mairie de la commune Thiès Est nekk aussi tamit responsable Pastef bu commune boobu madame mbay ñu ngi lay nuyu. Euh, maa bu baax soxna Awa di la jox sa wàccuwaay di ñaan kàddu yi fekk la ci jàmm euh, di sant waa télé bi di sant tamit déplacement bi nga def. wax dëgg yàlla macha allah. jërëjëf ci accepté bi ñu accepté ñoo ko interview bi voilà tey jii nag war nañoo waxtaanee mairie zone est est yi nga xamante ne fa la nekk adjointe. Mm-hmm. war nañoo waxtaanee aussi la coalition Yewwi Askan Wi. aussi rapport cour des comptes bi nga xamante ni jamono yi mu ngi def bés ci ci ci ci réew mi. Mhm. aussi pour finir ak dossier juridique yi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ci réew mi. Mhm. madame Mbaye presque pratiquement def ngeen un an ci ci mairie bi lan mooy réalisation yi. ah waaw macha allah euh, soxna Awa soxna laaj réalisation yi ñu def ci 2022 bi euh, ba dugg 2023 bi dinaa ci sawar. Mhm. parce que la fois passée euh, ñu ngi am ay yoo xamante ni ku ne xam na ni li ñu ci TSS. Mhm. Euh, ñu ngi pare pour récupérer suñu jardin suñu espace yoo xamante ni espace public. commune bi ne xam na ni respecté wuñu woon loolu. mën euh, na ko mën a récupérer seen espace yi nga xamante ni mën nañ bëgg a def pour Thiès mën a am benn visibilité bi Thiès mën a set. loolu lépp ñu ngi ci ñu yokk école yi salle de classe yi yëpp ñu ngi ko yokk ñu leen jox ay table banc jox leen ay cahier yooyu yëpp ñoo ngi ci ay rang papier yooyu yëpp ci te incha allah santé yi nga xamante ni ñoo ngi koy construire yëpp incha allah balaa yàgg poste de santé Ablaye Yàqin poste de santé Cité Ñax ak Cité Kër Xaadim yooyu yëpp incha allah di ngeen ci dégg ay euh, nouvelle incha allah incha allah dañuy des toujours ci ci mairie yi wax ci cadre mi nga xamante ni mooy jiite commune nord ñu koy nuyu de passage moom apparemment yéen ci seen ci seen ko ci seen biir euh, parti bi di Pastef da ngeen doon bañ cumul mandat ba mu nekkoon combat ci yéen tey jii bu ñu gisee koo xamante ni ci yéen la bokk bokk ci ñi gën a fës di def cumul mandat boobu loolu noo ko mën a jàngate euh, waaw dama laaj ci koo xamante ni day sama lépp maa koy sant bu baax Birame Souleye di ko nuyu. honorable député day suñu lépp. te ku nekk xam na taxawaayam ci Thiès. te ñun Thiès bu ñu fi amee kilifa à part Ousmane Sonko Birame Souleye Diop lay doon ndax ku ne Birame ne Ousmane Sonko te Birame ndeysaan soo ma ko mayee ma seede ki tax ma nit gu Pastef ki tax jàppoon sama loxo mu ma ko jamono ñu am na si jaay maa ngi koy sant bu baax di ko nuyu sama frère sama xarit. ndax su ma duggee Pastef rek moom moo ma ko moom moo ma wan yoon mm-hmm. te moo ma samp moo ma jàppale kon maa ngi koy sant bu baax waaw ci kii euh, mandat bi li ñu ci mën a wax moom bariwul. parce que Ousmane Sonko moo waxoon su ma faloo ci mandat wax fi dëgg mais Ousmane Sonko falu Ousmane Sonko falu. bu ci des mooy Birame Souleye falu boppam. askan bi ñoo ko faloon. mais askan bi ñoo préféré Birame Souleye nekk maire. nekk député. askan bi ñoo ko ñoo ko ñoo ko loolu ñoo ko sàkku. kon Birame moomul boppam. day dogal. te incha allah askan wi li ñu bëgg ñu toogal leen assemblée toogal leen ci mairie bi ci kattan yàlla. yow est-ce que mënuñ koo jàppee wax waxeet. yow bëgguñu foofu. non non. tey ñu des ci mairie yi ak euh, le maire Babacar Diop. Mm-hmm. moom gis nañ ko waaye salaam moo def sorti yoon. Euh, mais day poser candidature pour les élections de 2024. Mm-hmm. Euh, noo jàngatee loolu. am na ci droit doomu Thiès la. Mm-hmm. te ku am vision ci politique la. mais fa mu nekkoon ci yeewu askan wi. Mhm. fa mu nekkoon ak fa mu tolloon ci Birame Souleye Diop. Mhm. fa mu tolloon ci Ousmane Sonko. Mhm. ba léegi fa la toll. mais nag am na droit fësal boppam ndax doomu Cees la. ndax daa bàyyi Pastef. Euh, mosu nekk Pastef. mais ñoo bokk nekk ci coalition bi parti boppam la yor. effectivement euh, Jaliwaar. man la yor ñu nekk Pastef moom xam naa coalition bi moo leen boole woon. dafa mel man may dem Porokhane ba ci demee mu def paas. macha allah dañuy des ci ci ci loolu sax wax ci ñi nga xamante ni ñoo war Pastef wala ñi ñi nga xamante ni ñoo wax coalition Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. Euh, schéma yi dessiné wu nii mën nañoo njort ne est-ce que coalition boobu dina yegg ba 2024. waaw xam nga du fa yeggul fekk na ñëpp pare nañu. Mm-hmm. bu fa yeggul. Mm-hmm. ñëpp pare nañu te ku ci nekk xam nga yoon wi ngay jaar ak yoon wi gën ci yow. donc ku ci nekk rek. fa yaakaar ne fa la ndam la nekk te fa nga yaakaar ne fa la lépp di sottee yàlla na ko suñu borom jubal te loo fa yóotu ñu gën ci yow. ba euh, li may laaj mooy euh, yow gëm nga retrouvaille famille libérale wala famille social gëm nga lool. waaw ah, lan moo tax gëm ko. Hmm. Mhm. léegi supposons waa li famille Ablaye Wade retrouvé wu. Hmm. famille PS retrouvé wu. Hmm. jàpp Euh, Ousmane Sonko wala le Pastef dina nekk ci si benn diir système boo xamante ni maîtriser wu ko. lan moo tax nga ne maîtriser wu ko. ah bu hmm. la ñuy def. <laughs> jàppoo ne dooleem dina wàññeeku dara. mais bu fekkente ni am nga xam-xam. Hmm. xam nga Ousmane Sonko lu ñu teg saa yu xëyee am lu yokku moom. Hmm. kon gisuma du dellu ginnaaw ci moom. wala dara. intercoalition bi Yewwi wàllu. est-ce que mm. jàpp nga ni wàllu mi ngi nekk di jouer franc jeu. non jouer kooku affaire am la parce que ñun bu fekkente ni nit danga ànd ak moom nga ni da ngay jouer. Mm-hmm. moom mu nekk acteur bi toog la seetaan. Mm-hmm. loolu amul lenn lu ñuy wàññi. Mm-hmm. ñun waa Pastef amul lenn lu ñuy wàññi xanaa kay lu ñuy yokk la. doole moom yàllaa ko yor. te ñun am nañu yaakaar ne am nañu yàlla. doole ji bi ngeen amoon biir assemblée moo taxoon ngeen am cohabitation bi. Mhm. léegi ak tendance yi dessiné wu. Mhm. wala li ñu jot a nemmeeku biir assemblée dafa mel ni seen doole mu ngi fay wàññeeku bu baax a baax. moo loolu nga yaakaar rek mais ñun jàpp nañu suñu doole mi sa wàññeeku. Mm. Mhm. léegi bu yeew bi waa wàllu rejoindre camp Benno Bokk Yaakaar. non loolu amuñ ci problème fa ñu nekkoon. Mm. dañuy am yaakaar ni saa yu yeewoo rek dañuy am yokkute. Mm. ñun ci benn problème. Mm-hmm. ñu ñu dem ci rapport Cour des comptes bi nga xamante ni génne ne ko ci fonds Covid yi nga xamante ni Sénégalais yi dajale woon nañ ko jox ko le président de la République. Mm-hmm. ñu remarqué ci ni euh, am na trou bu 0,7 pour cent ci ci ci fonds yooyu noo jàngatee rapport boobu. mais loolu loolu seen bopp lañ koy def. Mm-hmm. ndaxte yaakaar naa ne gis nga Sénégal bi ñu toll fii ñu toll ñu ñëwee. Mhm. kenn ñu fee dàq sàcc ba jàpp ko. Mhm. ndax la non parce que gëm dëgg xam dëgg ñu newuñ ko. Mhm. loolu moo tax dàq sàcc ba jàpp ci coow rek lay ci ci lay mujj. du mujj fenn. mais bu fekkonte jii nag moom. Euh, parti Pastef moo sàcc moom duñ fi doy dañuy jàpp force. mais la dogal na sàcc ñu. kon nag ñoom bu dee noonu lañ ko gisee. Mhm. plainte yi wàññiwu leen dara. Mhm. ah dañ leen toog leen seetaan rek xëy ñu war a wax dinañ ci wax. Mhm. ci plainte yooyu sax la ñuy des ndax gis nañ société civile bi ne dañuy def ay plainte collective yoo xamante ne dañ koy déposé. Euh, jàpp na ni loolu it dina aboutir à quelque chose. du mujj fenn. du mujj fenn. sax lan du mujj fenn. <laughs> mais njiit bu bon. njiit gi nga xam ne boppam la fi nekkal intérêt boppam la. lijjanti bi mu nekk ci ginnaaw ñëw di doole yi nekk boppam rek lay lijjanti ak ñu sës ci moom mm-hmm. léegi bu fekkente ni ñi nga xam ne ay baadoole lañ seen ob bu dafa oyof mm-hmm. ñoom dafa am loo xamante ni ñu ngi koy jooy mm-hmm. ah bu ñu gis ku leen dooleel mais ñu jël lépp teg ci loxo yàlla yàlla baax na ay daam loola fa yàlla yàlla bay sa tool mais yàlla yàlla bay sa tool parce que dama yaakaar bu doon xeex moo ko fi jëlee dañ na bu doon dee moo ko fi jëlee dañ na bu dee tëj ci prison bi moo ko fi jëlee dañ na mais ñun lépp ñu ngi ci te taxul dara changé parce dara dina changé bu ñu fàtte ni aussi tamit ba ñuy jël dajale suñu xaalis boobu mille milliards di ko jox le président. Mm-hmm. dafa àndoon nag ay ay ndomba tànk mën naa koo wax. Mm-hmm. mooy ay ay ay ay euh, pouvoir exceptionnel mooy comme loi d'habilitation bi. Mm-hmm. bi nga xamante ni retiré na lépp luy contrôle financier lépp luy euh, contrôle marché public yi retiré nañ ko bu ñu gisee loolu yëpp est-ce que jàpp nga ni ñoom am na lu leen couvrir ndax contrôle boobu dañoon na. waaw déedéet loolu leen couvrir kay lenn la mooy njiit gi. Mm-hmm. dañuy tegale bu jubee ba jiitu. Mm-hmm. moo jub mm-hmm. mais bu jiitu bu jubul. caat ak rakki caat ak lépp a ci am. kenn du def lu baax te loolu ñu topp ba léegi. bu ñu amee ku leen couvrir dara du feeñ. dara du am trace te coow leen tant que ñooñu fi njiit gaañu fi ba léegi. coow coow dañuy coow bàyyi. moo gisee euh, gestion Macky wala da ngeen a jàpp ni lépp dafa bon. si am na lu baax kay. nit bu defee lu baax rek day def na lu baax. comme lan parce que mu ngi jéem jéem ba egsi ba fii mu nekk. Mm-hmm. am ñaari mbaam mm-hmm. ah jéem gi nag ren fu mu yem. Mm-hmm. bu fekkee lépp baaxul it am na benn bu ci baax. mooy lan. ah xaw ma de parce que man Macky Sall vraiment du ma suivre ay mbiram ba tax na lijjantiwuma dara am. mais nit mënul nekk ci àdduna chaque jour da def benn bu baax mënul nekk. comme xëy na bu fekkee def na benn bu baax. ah xëy na moom xam na ko. yow en tant que sénégalais ngay nekk fi Sénégal gis réalisation yi nga xamante ni président mi ngi koy def mënoo ma citeel benn boo xamante ne président def na ko. <laughs> léegi donc président mën nga sori ci ay mbiram. Mm. Mm-hmm. vraiment mën nga sori ci dara. mën nga sori ci dara. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> dañuy génn kon ci dossier boobu dugg ci l'affaire Mame Mbaye Ousmane Sonko loo xalaat ci loolu. Eh, waaw l'affaire Mame Mbaye Ousmane Sonko. Mhm. Eh, kii UGF eh, bi ñu koy bi ñuy mhm. teg nañ ci seen bët. Mhm. Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët ba tax na suñ président Ousmane Sonko. génn def point de presse am. man en tant que femme responsable. maa ngi def sama déclaration tey. di xamal ne Mame Mbaye Niang lii ñu Ousmane ko def ñun responsable yëpp surtout ñu jigéen ñi pare nañ pour def ko def suñu point de presse moom dafa mën bay convoqué mu convoqué responsable yi Sénégal yëpp le 16 ñëpp ñu wuy si ko moom man may ñaan ñu ngi koy wax loolu gis nañ ba mu génnee ci ci rendez-vous boobu mu ni waxul IGE waxul IGF waxul OFNAC mais rapport bu ñu ko mën a génnee moom il se considère prisonnier <laughs> te ba léegi si gisaguñu rapport bu génn non kooku dafa am loo xam ne ci tegu. jotee ñun Sénégal yëpp nañ ci teg suñu bët. noo gisee ñàkk wuyu bi Ousmane Sonko ñàkk wuyu ji jàppoo ne il risque gros ci affaire boobu. amul lu ñuy risque Ousmane Sonko moomu suñ ko bàyyoon woon day wuyu ji. loolu benn ci man. ci ñi koy wax ni ko wuyu ji ci laa bokk. parce que ko du wuyu ji. en tant que le responsable de Pastef. di kilifa. kilifa la moom nekkatuñ fi sax di ko laam-laamee. yor bi jabar loolu nag mhm. yor kàddu it mu gëm ko jox ko ko ñun ko bu ñu ci lu ci góobe jar ko bu mu wuyu ji yoon waaw ko <laughs> eh, mm. man ku nekk xam na ni ba mu pare yàgg na mm. man 2016 bi ma rayantee génn pas génn eh, dugg Pastef mm. ci la ku nekk xam na ni sama bakkan dama koy tawale fu ma toll ci lu ko jar nag te biir na man su ma ko taylee mm. bu ma ci dee àjjana laa jëm mm. parce que mm-hmm. violence bi ci dëkk bi moo waral ñu koy tayalee mm. kon ñun biir na ci violence yi euh, ñu bëri nañu koy assimiler ak euh, waa Pastef non non dañuy tooñ dañuy tooñ parce que ñun ku nekk xam na ne mm-hmm. ñuy doxee ak suñu comportement suñu jëfin mm-hmm. suñu waxin suñu dimbalante euh, patriotisme bu nekk ci ñun nday euh, yaakaar yaakaar nga ni anti système veut dire bind naa sama testament wala ay slogan yu mel ni ne garsa garsa euh, ma di la xamal ne Ousmane Sonko dafa juum sax ba hmm. ne moom bind na testament am hmm. ñu moom mu def testament am ñun ñoo pare pour def suñu testament yàgg na hmm. parce que moom bakkanam dañ ko soxla moom bu ne bakkanam da koy jaay président Macky Sall ñoom soxlawuñ loolu ñun ñoo jël suñu bas jaay ko président Macky Sall mais bakkanam moom dañ ko soxla mm-hmm. ñu ngi ko koy xamal rek li ko yóbbante mooy Ousmane mm-hmm. ko soxla mm-hmm. Euh, ñu des ci Adji dem ci Adji Sarr bi nga xamante ni depuis deux ans mu ngi traîner comme euh, yéen waa Pastef mën naa ko waxee noonu da ngeen di tere seen leader muy wuyu ji euh, jàpp ngeen ni dina wuyu ji wala di ngeen nangu mu wuyu ji Adji Sarr comme wuyu jiwul Mame Mbaye ñoom ñoo nangootul Ousmane Sonko wuyu ci dara parce que mbir mi nekkatul mbirum viol non non parce que man dama dama am lu ma jàngat ci Sénégal li ma wax sànq njiit ak njiit yi nga xamante ni euh, amuñu kilifa parce que bu fekkente ni da ngay topp benn mbir deux ans ak li fi am lépp li fi am lépp mënu ci am benn preuve nga topp génn kilifa goo xamante ni njaboot gi nekk ci ginnaawam ëpp na ay cinq mille quelque doomu aadama xooloo dara chaque jour yaa ngi koy wax lu bon yaa ngi koy wax lu ñaaw te seetoo ci dara te ma di la xamal ne bu yàlla suñu borom jëloon vingt heures wala vingt une heures mu def ko bëccëg musiba dina am. sagam yàlla mu ñu sàkk moo ñu sàkkaale ak sutura asamaa ñun doomu aadama ndax immeuble viol yi bu daan woon ci Sénégal Sénégal yàqu jeex kon ñun jàppeetuñ ko viol kompolo ñu ñun ñu ko jàppeetul viol te amul mm. parce ñun Ousmane Sonko te mm. suñu kilifa tollu ci ñun foo xamante nii gis nga kii toog ci internet bi réseaux sociaux yi di wax yàq yéen yi Ousmane Sonko yaa ngi def loo xamul. est-ce que dañ leen a répondre rek. non amul lu ñuy répondre suñu am lu ñuy répondre parce que kilifa da nga koy warmaal. madame Mbaye nag ñu teg foofu suñu suñu baaraam. Mhm. ndax euh, ci mel ni juge euh, Maham jàll gis nañ keroog rek li ko fi Ousmane mu jee wax ci ay kàddu yu yu yu tegginuwul. <laughs> waaw bu dee kilifa dañ koy warmal ma jàpp ni buñ koy ci ci ci fépp la war a doon ci ñëpp la war a doon. non bokkul de yaa ngi jaawale lu bokkul. Mm. yaa ngi bokkul. Mm. parce que li mu ji jiim Ousmane Sonko Ousmane waxu ko Yakham Diallo. mais Yakham lu mu def dafa comme dossier bi dossier viol la te viol comme dañ koo criminaliser mu jël dossier bi yóbbu ko ci chambre criminelle. wala daam leneen lu ci laxasu. li ma wax li ci laxasu lépp ñun mënuñoo toog sax di ko expliquer. ba tey ci complot bi. li ci laxasu lépp mënuñoo toog di ko expliquer. ci li ma lay ci li ma lay ma lay gàttal. parce que man mënuma mënuma comprendre. dañ fi convoqué ku nekk ñoom ñu ji. ñu fi ji ñu nekk nit vraiment ñu ji ko. ci jàmm ak salaam. mais imagine Ousmane Sonko. suñ ne war na ñu ji. Sénégal gépp ñu wàcc ko ay homme de tenue takk der ci benn nit te insécurité bi am Sénégal nga dox bëccëg ñu rey la nga dox bëccëg ñu agressé la nga dox bëccëg ñu sàcc la dox bëccëg ñu pëf sa poset def la ñu ne sàcc doom yi waa ji xale bu ndaw bi leen violé. loolu est-ce que jàppoo non attends rek attends rek dayoo moo. non ma expliqué la attends rek ma expliqué non affaire bi du protéger. Mm. loolu su amee. Mm. ñu toll foo xamante ne nii. Mm. Ousmane Sonko bu ñu nee dañ koy wuy dañ koy wuy ji ñu wàcc àddina takk der ba barki démb ci euh, seen masaar bi est que loolu jaadu na mooy loolu dafay damay rus xam nga tax may rus. parce que dama yaakaar ne ñun seen ñun bu njëkk ñun suñu jeunesse suñu gisaan takk der dañuy daw mais léegi xale yëpp xam takk der ñi parce que te bu ñu demee ba toll ci jigéen bi jàmbaarlu takk der ragalu ko daw ko yotaa bu ko sànnee la ko remisel mu sànniwaat ko ko mu jaral ko lu nekk man Sénégal lañ nekk suñu doom yi li ñu tàmmal ak li ñu leen ñuñal loolu est ce que xam ne lan lañ mën a juróol ëllëg xooluñu loolu kon ban Sénégal lañ nekk non damay laaj. kon Sénégal lañ nekk. Sénégal bi Ousmane Sonko ak Macky Sall bokk. <laughs> ah doy na en tout cas. Mm. Mm-hmm. kon ba wuyu ji bi. non Sonko dama fenn. dama fenn. bi woo Ousmane Sonko ñu ne ko Ousmane Sonko du du wuy ji sa tamit du mujjee nekk bras de fer entre Ousmane Sonko ak la justice ndax mënoon ne justice bi dafa jéng dafa jéng ba euh, suñ la woo nga nga wuy ji ndax moom bu ñu fàttali ko moom moo njëkk a envoyé citation Mame Mbaye ci kaaw mambay bi Ousmane mm. ñuy jéem ci ñun lay dépendre parce que ni ñuy joxee ndigal ñu di ko def ñu ne noonu dégloo mm-hmm. buñ ne ko demal wuy ji day dem mm-hmm. que lu ñuy jël li ñu la def te ci moom. léegi jàpp la lii nii dina mujjee am représailles bis bu ngeen nekkee président ci ci gi. waaw bu nekkee ci nguur gi dëgg rek. Mm. parce que lii dëgg lañ def. Mm. parce que li nga xamante ne moo dal Karim Wade. Mm. dal Khalifa Sall. dama ne la ku ndóobul rey sa maam. boo gisee lu ñuul da ngay daw. ñun ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi. di jigéen yi di responsable di yaay ji lépp. ñun ñoo nangootul kuy nit doole fii ci Sénégal. nangootuñ ko te yéen war ngeen cee xam dara parce que depuis Ousmane Sonko bi ñu rombee élection présidentielle ba léegi Ousmane Sonko amatul jàmm kon war ngeen xam ne am nañ engagement ni jàpp ni kii kenn du ko faagaagal te Macky Sall kenn dong moo ko teree nelaw tey ci àdduna Ousmane Sonko kon dina dem ak du dem ak dina dikk ak dikk ñun lépp fekk ci daa demoon ñun foofu lañ ko teg. ban message ngay la lancé ci jeunesse bi. xanaa comme def nañ seen testament ñoom ñëpp. Mm. fu ngeen teg seen tànk. foofu la. parce que lu ñu jaral ñoom ñu ko xam ndax li ñu dal yëpp suñu yaay yi ñoo ñu ko teg. parce que xamuñu woon mm. lan mooy valeur politique. xamuñu woon jigéen lan mooy valeur am ci politique xamuñu woon xale yi lan mooy seen valeur ci politique ba tax tey ñun mm. ñu fipp di xeex jeunesse bi fipp di xeex. ñoom lu bari da leen jaaxal parce que dañ naan ñoom seeni jamono bañ ci tolloo xamuñu woon lii mm. waaw xamuñu ko woon parce que xam nga lu ñu xamoon mm. jàpp leen ci oto dugal leen jox leen deux mille vingt mille francs dagg ñaari yaar Lagos jox leen ñu dem loolu lañ xamoon loolu dafay jeex tey tey boo seetloo jeunesse bi loolu jëmmatu leen kenn fayu leen seen ngor lañ àndal seen doole seen dignité ak seen bakkan ku leen nar a jaay doole ñu defante ko yow fi leen toll. Macky Sall mi ngi war a ñëw Thiès. dañ koy teeru. Mm. dañ koy teeru. xam nga sànq nee nga ne yéen waa Pastef da ngeen di tooñ da def nii naa nga noonu. damay damay bi Macky bi mu fi ñëw tournée mhm. passé mhm. benn ci man ak euh, madame la maire euh, Marema Ndiaye di responsable département mhm. ñoo ànd dem ca manifestation ba ñu jàpp ñu président dafa woote Birame Souleye Diop la numéro 2 mu seen yoon ci ñëw Macky Macky day def tournée seen yoon nekk ci ñëpp ñu ne yaa ci kaw kon Ousmane Sonko bu jógee di def nemmeeku tuuram kon war nañ ko bàyyi mu def nemmeeku tuuram Macky Sall bu ñëwee Thiès message bi président Sonko di joxe leen la seen yoon nekku ci teere leen ko ni ko mën a teeree te dañ koy teeru yàlla ko yàlla defal jàmm ba mu ñëw ci jàmm dañ koy teeru bal du tàkk dara du yëngu parce que loolu lañ président Sonko yar yaree comme li ñu cëralee woon ci waxtu daanaka jeex na ñu mhm. lay wax nga joxe kàddu gu mujj euh, waaw di sant rek mhm. di sant yàlla bu baax a baax mhm. di sant Moussa Mbaye di sant Birame Souleye Diop di sant sama maire monsieur Ousmane Diagne kooku bi mu duggee ci li ñu jëlee mairie beeg léegi yàggul waaye bëggam Thiès lu ñuy naatable Ousmane bu sañoon tey Thiès ku fi dugg dangay xool beneen xar kanam ku baax ku yaatu ku bëgg li ñu def ku bëgg ay adjoint parce que bu ñu demee ba tey Ousmane nekk le meilleur maire de l'année lu ko mérité la te ñun ñu nekk ñoom xam nañ ci dara ndax ku ci nekk la ñu euh, dala koy jox ñu ngi koy sant bu baax di sant samay frère di sant samay soppe samay moroomu jigéen samay responsable suñuy responsable yu nekk ci département bi ñoom ñu leen sant bu baax ndax ñoom tamit ñu jàppale la ñu tettali ci politique ñu leen sant bu baax di leen jaajëfal di leen wax ni yàlla ñu yàlla defal càmm may suñu président jàmm mm-hmm. incha allah <laughs> <laughs> bu 2024 président Macky Sall ban président la am kan. Hmm? kan damay laaj ban président ngay. Ousmane Sonko président Sonko laay ñaanal yàlla suñu boobu defee parce que bi ma demee Porokhane moom kii xam bi loolu rek laa fa ñaan de. Hmm. suñu président Ousmane Sonko ko yàlla may càmm. Hmm. yàlla jàmm sax Sénégal <laughs> madame Mbaye ñu ngi lay remercier di la jaajëfal bu baax a baax ni ki noonu ñu ngi remercier aussi monsieur Mbaye ndax bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo facilité émission bi ak Khadim Soumaré aussi ah, di directeur programme au RTT TV bokk na ci ñi facilité jataay bi mm-hmm. ñu ngi remercier tout l' équipe technique di ci jiital Doudou Tass ñu leen di sant bu baax di leen di leen gërëm tonton Seck le président directeur général bu RTT TV aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm la Linguère suñu euh, gestionnaire de ressources humaines aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Siré Marigo sama mentor du ma la fàtte di jaajëfal ñëpp di sant bu baax soxna Diarra mi nga xamante ne tey jii moo ne ma demal jëlal période bi nga demee ko émission ji leen jox dig daje ba beneen incha allah merci beaucoup <laughs>